bokk ci jullit yëpp tey jox ndigal bokk taalibe bi murid yëpp ñeen fàtte ne ma ñu waxoon ci gàmm gi fàtte yi ñu ko sëñ Tuubaa bëgg yoon am nañu ko fonk woon am na nga xam ne ci jamono gàmm kenn du xaj ci dëkk ak njaareem ñëpp dañu def ko foofu ay fu dafay jóge di ñoom mu warloo moo xam ne kenn ko ma lijjanti kenn ko attan waaye nee nag ñaanal ko defagul ci ñun bëgg ñu wesaar ko defuñu ko sax waaye nag ñu gën koy fonkaas na fi ñu bëgg a leer loo xam ne man sama gàmm bopp ji ma baax def ci Touba moom man ko ci ñuy defee moo ko daa defee rek amuñ ci lu ñu yokk amuñ ci lu ñu wàññi ndax loo man ñëpp daanaa ko ci ma dëkk ñëpp xam nañ ma ci loolu bu ñu bari ci man daa gàmmoo yéen gàmm yi am ci Touba yoo xam ne bii ci saan lañu it maa ngi soññ yooyee bu gone def ko fi kenn kenn bañ a wàcc sama daa moo di ñëw fii xëy na dund ko fuñ ko daan ñu ko fa def sama kër bopp yi ma am gàmm njëriñ ji itam maa ngi ci sama gàmm yëpp def ko Tuubaa def ko ko fa ak ci jumaa ja su ñu dañ di ko def ku ne xam ne léegi maa ngi di soññ ñoom ñu yeesalaat loolee ko fa daa defe si ko fi defe si sama daar yi ma am yëpp ak sama kër yi tees ak yi ci muur daar yi ma am ci sow ak yi ma am ci penk yëpp fu ci ne gàmmukaay la boo xam ne ñu dëkk moom xam nañu loolu ñoom ne ku ku fa gàmm ji da nga fekk ñu ñu ñu ñu ko ni ko sëñ Tuba leen diglee ñu tax si moom bi sunna fii léegi kay léegi ndigal li ñi wax li may yi nga xam ne dañ koo sañ ci def ko kër yi sëñ Tuba ci dëkk bu mën doon ci réew bu mën doon nag kër yooyu ñu ko laajoon ba def ba fa kër ya liggéey na ko mooy def suñu maa ngi leen sant ñu def fa gàmm gàmm bu wóor boo xam ne dañ koy fonk ba def fa kër ya ci ndigali sëñ Tuubaa